allah allah allah auzu billahi bismillahi na waliyallah auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim dañuy sant yàlla bu baax jul sant jul ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di ñu fi teew ñëpp di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ramadan mi fi bàyyi ko yal na ko yàlla suñu borom xaare àjjana ak bépp bakkan boroot di bàyyi ñu fi bàyyi suñu borom yàggal seen taxawaay te defal leen jàmm te yàlla suñu borom teg ci njaboot yi yëpp loxo ci barke Cheikh di nuyu ñi fi teew ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di wax ne signature tey bii may def nii diis na gan waaye tamit oyof na ba na torop mel ne làmb tax boo déggee diis na gan mooy Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Serigne sa manager mënoon na jël sama place sa manager na ma wax li may wax nii nag lu diis la ci man nga ne sa manager bi gars yi dégguñu la manager Serigne Ndiaye mënoon na jël sama place man moo njëkk a mënoon na manager Serigne Ndiaye mënoon na waxal sama sama sama place su manager manager Serigne ma signer ayca doxalal làmb day boo xamante ni man xaw ma làmb lu mu doon. <laughs> ma firndeel leen tey man du ma mbër. lu tax. parce que bëgg naa làmb trop waaye. ma doxalal balaa xol bee tooy. macha allah ñu may ko mu naan ndox yaakaar naa ne làmb moom daa wuyoo turam lool may ko mu naan ndox ndeysaan Baay Faal la est loolu ak làmb ànd. lu nekk ci xol rek yaakaar naa ne ci ay xale yu ndaw Abdoulaat ban réew la ñu nekk yaakaar naa ne police yi ñu ngi ci dëkk bi nañuy xool moto yi nga xamante bi ni amuñu plaque dañ koo futti bam set amuñu ay làmp moto yooyu waratul daw ci dëkk bi yaakaar naa ne loolu war nañ koo xoolaat bu baax képp kuy dawalati moto maamadi Mmh. na nga yor sa arme mmh. protéger sa bopp parce que kuñ ci rey yaay perte mmh. ci arrangement rek lay mujj kon yaakaar naa ne mën nañoo ñoo nuyu Serigne Ndiaye numéro 2 waaw aca Serigne Ndiaye Coriace Moussa Ndiafat maa bu baax di la bëgg bos maa lay siyaare bu baax moo di la bëggee gars yi ak waa giri Fass bu baax a baax suma Abass Ndoye suma Tafa Gueye ak su mel ni sumay entraîneur par exemple Kër Diop di ko ñaan mu nekk ànd ak wér di nuyu sama ménagère Sow Ibrahima di ko ñaan jàmm salaam di nuyu gëm dara mooy soose di jaare nag waa ngir nga xamante ne mooy raam ma ko jógee bëgg dem moo jaay di jaare sama waa nga xamante ni ñoom waa ma Medina ma fa di nuyu suma mbokk séeréer yi waa Njaafaat séeréer Ndiakhate Bërëb Ndiakhate Ndiakhate Socé Ndiakhate Escale ak tund Ndiakhate yëpp di nuyu waa Gambie suñu papa Riyad Aziz suñu papa Cheikh Soumboulou xam nga di nuyu waa Gambie yëpp ak Kolda yi suma baax le grand Maxi baax a baax yéen waa bi yëpp baax a baax di nuyu suma adversaire nag di remercier nga xamante ne nii mooy suñu bopp Gaston Mbengue parce que vraiment combat jafe woon na trop baax a baax ci courage ak jàmbaar bu mu am ba jël ma di ko sant bu baax di ko gërëm di nuyu suñu père Laxa Ndiaye di nuyu ñaari mbër yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal di nuyu suma gars yi may àndal nag baax a baax su mel ni Zal Bada xam nga Ousseynou lu mu sobee galas nga moom Samba Mour Lamine di nuyu xamante mooy Baye Abdou Kabalowski di nuyu waa bu baax a baax waa golf yi di woo ñëpp ñu waaj ko baa bi daal yàlla dafa ñu ndam lu rëy du gaaw ak suñu tubaab jërëjëf ma dugg ci question yi rek ama seen si ñoom wa yoon bi yàgg na waajtaay bi yàgg na ñëpp bàyyi ko fi nga jël ko sa diggante ak euh, Serigne Ndiaye numéro 2 feebar yëpp dafee nag nga taamu siti maa ngi bu baax que la muur ma wees doomu aadama barki bàyyi ji defal xam na ne Serigne billaahi wallaahi ñëwuñu ci Serigne Ndiaye pour bëreeg Serigne Ndiaye que ñëw ñëw pour ñu fay ñu pare ci jàll dañoo ñëw pour xeex ak ba mu sab-sab bëreeg yow loo musul daj te sax dajal nga ko man ak toog nañ nit moo dox suñu diggante fi mu toll nii man ak yow bëri nañ ba dama koy bamtuwaat ñu bëre ma ne man ma am quatre avertissement ak defantir loolu ñu dox nga am euh, deux avertissement ñu disqualifié ma ndax temps bi dafa jeex. mais dama lay wax ne jamono boobu noonu dama bëggoon fay sama sama jàngu doom ci benn semaine mën a xaaram dugg ci bi du woon lu ma entraîné làmb la nag mais barki maam Cheikh am nga combat am nga client boo dul yàqale fenn fenn fenn am nga client bu soxla am nga client bu bëgg am nga client bu ay mbokk am yàpp ndam nag yàlla suñu borom moo ko moom bu ñu xamoon fu mu nekk duñ ko laaj kenn dañu dem jëli ko mais lii di jom di fula di fit ak njàmbaar dafa nekk ci doomu Saal Jigéen Njaay Gambe ne Biram Tenn Njaay Gambe ne Yuga mi cam gaal barki maam am nga làmb ju mat lamb barki maam Cheikh Fall ju mat lamb te damaa ñëw ci yow damaa ñëw ci yow pour ñu lamb damaa ñëw ci yow pour ñu lamb damaa jël combat bi pour am ndam ma waxaat ko rek bu ma xamoon fu ndam nekk damay dem jëli ko c'est la première fois mu dugg écurie Fass te sax nag bu soobee yàlla incha allah yàlla baax na ba ba incha allah Serigne am nga làmb ju mat làmb encore une fois di woo waa Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di woo waa Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di woo waa Diourbel man damay mbëru dëkk man damay mbëru Baye Fall man sampu Cheikh Ibra la par man ragal ma fi ma jëm par ci maam Cheikh Ibra ragal ma fi ma jëm man ab donga la man donga Cheikh Ibra la man ci wanagu suñu Ibrahima àndar laa yeewoo te dama judd fekk sama papa ak suma yaay nekk ci ñi ñi mën a seede bari na dama lay wax ne la damaa ñëw pour làmb feebar yëpp feebar yëpp yëpp yëpp dangaa tudd siti te feebar yëpp garab yëpp yëpp garab siti moo ci gën a yomb souvent 1000 francs ñi di ko jaay juróom fukk garab siti seerul waaw dañuy wax waxal bu baax baax baax baax di leen bu baax di leen baax di leen gërëm wax ji jarul muy bëri xam nga wax jëru mooy lan moom bu taxawee ndey làmb def lu ma neex rek lii du combat lii moom moo ko def combat lii dafay musculaire la daf leen déggoo ba xam nga dafay musculaire mooy lii ma xanaa ko ko avertissement mooy lan mooy bëri ak yow nga am yow nga am quatre avertissement mooy lan bëri woo non yow xel la rek bu ma joxee victoire mooy lan moom quatre moom moom deux mu ne parce que Mbawar Sossoba léegi foo gis quatre avertissement trois mu jeex na bàyyi xelam bu ñu fooyee man dama nekk si yoon damay dem nag suma yoon yoon. xale yi commencé wax incha allah euh, xale bu mu tudd limousine général Malika dañuy laale ci mbapat ñëpp da leen a effacé ba toog mooy maintenant la li ñu woo maintenant yëpp nag naa dugg xam na moom. sëñ Dia na nga ma waxoon plateau ci TV yàlla ba léegi. voilà damay ñëw rek xas ko jàll. boole ko ci lim bi déggoo li ma wax déggoo mooy réveil musculaire day Anta. xam nga li réveil musculaire. waaw mooy lan. réveil sa objectif la ma def li ma def mooy j'attaque je cogne et allah rabi dégg nga li ma xanaa. mais li ma la mën a xamal mooy maa ngi dégg gars yi di wax nga naan faxas. joxos. wala ñoom baaba poussière te du ma tâche Serigne Ndiaye mel na yow essence bu tax ci du weex. <laughs> ma denc yow doo dégg. musoo làmba ku mel ne man barki chèvre musoo làmba ku mel na man Serigne Ndiaye da am combat pire. barki maam Cheikh Rafal da am combat te dañuy làmb dëggantaan njaay te jëluma Serigne Ndiaye pour ne damaa ñëw pour am si ndam te yàlla ma ko yàlla suñu borom jox ci barki maam Cheikh Ibra ci barki Baye Mourou Djili Fall damaa ñëw pour am sa kaw ndam barki Cheikh Rafal ma waxaat la ko nga jàpp ko def bopp Baye Fall man du ay poussière bañ may faxas Fall essence ci lu weex sax maa ko raw damay xeex damay bëri. Uh-huh. fii li ma bokk lépp mënumaa ñàkk jom fii li ma bokk lépp. ëmb yaay boo laajee woon di nga xalaat leneen lu dul faxas. ëmb. mbapat bi mbapat bi ne ci ñëw nee na da nga doon daw rek. waaw am carte avertissement su fekkee dama doon daw man. Hmm. man bu fekkee dama doon daw yàlla bu ma fekkee sama njëriñu doom. lu waral avertissement yi. li waral avertissement yi. mooy moom da moom ma gën a maîtriser lutte simple. ok tey daw jël ma. laa ganale su ma jëlee waaw defuma rek ma jëlee barki Serapal moom moo njëkk a am ñaari avertissement barki Cheikh te dama ko li consal ba mu def ko ak ñëpp yuuxu ma ñëwaat kon ne bëri bu fekkee da koy wet dina wax. Uh-huh. man Fall du ma koy daw. Uh-huh. man kon a ngàmbeel laa. Uh-huh. te di bàyyi Fall. amul ay yooyu noonu de man arrêté ma ko mi def moom xam na li may wax bu baax. bu fekkee li mooy wax li mu wax noonu dafa am parce que maam Seera Fall yàlla bu ma fekk sama njariñu njaboot. am jaay joxul jóob jafe ma ma xaar ma ñëw. Mm-hmm. dama lay wax ne la carrément man ak moom dañuy bëre ma ne coppee tànkam. moom mii man ñu je me rappelle très bien. Mm-hmm. parce boobu nekk ma ci dara damaa demoon rek pour wuti wecci fay sama jàngu doom. lijjanti ko kese. <laughs> ma ne coppee tànkam boo jëlee tànkam da ngay am da ngay am point. Mm-hmm. ma ne coppee tànkam. ñu bëri ci man ak moom man ak moom ñu bëri ci man ak moom benn ñu ma am ci moom mi ngi nii ma bàyyi ma fenn am na ñaar may soo commencé am xaw ma benn may soo commencé am du ma fenkat te boo bëggee sa narkat faal yàlla mu wuti ko ama eh. ama <laughs> eh, dama la invité arène sénégalaise ITV lundi lundi passé mm-hmm. alaaji Ngagne Diagne laaj la nga ne jëluma Serigne Ndiaye numéro 2 pour daanu. pa booba te ñu bëree bare dañu foog ne Serigne Ndiaye numéro 2 day ñëw jaar ci sa ci sama kaw jàll mais après la ñuy comprendre xam ne man daanaan la ndax da koy dëggalaat wala. ñu toog ci salle bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ci fekk jouru làmb ji barki ñu toog ci salle bi ñëpp ñëpp ñëpp ku ci fekk jouru làmb ja te yàlla ko ñëpp fekk sax na mm-hmm. yàlla ko ñëpp fekke yàlla ko ñëpp fekkee barke ah, ah, Mamadi mën naa mel ni combat ak général Malika drapeau bi drapeau maire Malika ba la woon général bi stade bi ba mu fees mhm. ndax mel naa mel ni moom ak xale bi nga xam ne mooy buur sin bëre ba bi mu daanee buur sin mënta taxaw buur sin mënta taxaw ñu àndandoo tëdd di nga fa yëg ak kii mhm. bon man de tàmm naa loolu daanaka ay bëri yu bëri ba ku nekk di ñandoog yooyu noonu tàmm naa ko de yooyu sama xam naa sama mbëggeel la yooyu moom sama mbëggeel la loolu day am de. Mm. raag bu miti boobu noonu. waaw non day am. mais adversaire bi. te lim gën a bañ moom mii mu gën a bañ laa koy def. kii <laughs> kii bëggul ku ko ërtal non bëggul ku ko ërtal ba pare li ma ko wax mu dégg ko taxaw ci ñëpp naan ay man yar la ma ñëpp xamee lu dëgg lu wér la wax yar la ma ñëpp xamee mais musuma la dépassé bu fekkee ne lii ma la waxoon uh-huh. moo taxaan nga taxaw naan man yar la ma ñëpp xamee uh-huh. mooy Serigne Ndiaye tattan nga les ëmma tapet nga suñu papa Tafa Gueye lay ñoŋal da lay ñoŋal nag parce xam na sa manquant tapet nga encore une fois ma waxaat la ko nga dégg ko bu fekkee loolu moo tax nga bëgg wax ne man dama la dépassé wala dara man dama respecté bépp doomu aadama parce loolu lañ ma jàng sama aduna dama mën a jox nit cër mais dama dégg sa benn sortie ngay wax que mel ne danga bëgg a jóg jaxaseeg xam bàyyi baal dongay Fall man loolu taxul ma nit ñi xoole ma leneen de bu fekkee ne loolu moo tax ngay wax maa la ko waxaat encore une fois nga. jox ko jox ko micro ITV. am na yoo xam ne boo koy wax ay waxu science de contrat rek boo ma juddoo Medina màggee communication yi moo nga bàyyi xelam muy fooy baax a baax a baax man j'ai fait mes pas damay compétir du jour au jour. nekkul benn combat bu deux mille trois mooy sonal kii xam la ma boole moom dooy wax yi déedéet affaire yi suñu diggante mu def may def mu jeex ma seet leneen. looy bañ noonu na xam ne dugal boobu moom ne carrément moom loolu day nax boppam carrément ba bi sifflé man moom ku ma xam-xam ne ba bi sifflé damay dox moom comme day dox moom buñ dajee day wadd rek day wadd man xale bu ndaw laa damay entraîné comme un fou nekkul moom mooy taxaw su ma ko naan dox ma kaw moom amul mental bu amul capacité boobu. mais temps yi Serigne Ndiaye da nga ñam xeex bi trop te waa ji bagarreur la de wane na ko ci ñaari combat yu mujj de. mbër dama bëgg ñu wax ñu dëgg dama ne ma maintenant la la yow maintenant la hmm. laa moo tax muy compétir nekk si mbapat yi. Hmm. mais comme samay combat de A à Z. gàtt gàtt boobu di siffler ñam benn dërët wala ñaari dërët. gàtt gàtt nag tey dërët yu baax laa la wax. man man je suis bien encadré macha allah je remercie sama papa Ba Moussa Gueye bu baax a baax nuyu sumay entraîneur ku si mel ni Kante Badian bu baax a baax di nga sant baax di gërëm li muy wax yëpp waxu signature neexa rek. yaakaar naa ne dañuy jox Abdoulaye. waxu signature la lay wax. li ma lay wax noonu loolu lay def ren dinaa la encore une fois bu ma xamoon fu ndam nekk dama koy jël mais jom ak njàmbaar ak fit xam naa fi mu nekk dama koy jël. tegal la ko sawet tàppet nga moo tax doo fa xaar lool moo tax bal bu ne a dal ci kaw nit ñi del cons champion del cons bëggoo ku la dóor yow sekkut ak yow cons revin musculaire may wax suma suma di nuyu suma waa écrit yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu sumay coach mhm. di nuyu suma ménagère jëli waat maa koy siyaar di nuyu suma papa Ibrahima Mbaye maa ngi koy siyaar bu baax a baax di woo géwél yëpp yëpp yëpp yëpp ndeysaan maa ngi woo géwél yëpp bàyyiwuma kenn mhm. maa ngi woo géwél yëpp yëpp bàyyiwuma kenn xam nga di woo wax waa géejawaay bu baax di nuyu grand Lirou Diane grand Lirou Diane lu doy waar la def ci ba mu am combat di ñaanal Balla di ñaanal Sa Thiès di ñaanal euh, Marley bépp doomu géejawaay ñëpp maa leen di ñaanal bu baax a baax waaw xam nga di di woo waa waa Diourbel bu baax a baax di nuyu ñi ma àndal muy suma grand frère suma papa Ablaye njaay kooku suma baay la suma papa la ndax moom laa gis man gisuma ndey gisuma baay Ablaye Ndiaye mooy suma lépp nuyu Bala Faye suma taaw yaay di nuyu Pierre Thier maa ngi koy siyaar Lamine Touré koo xamante ni moom bon maa moom mënuma sax wax moom sama xarit la Babacar mi nga xamante ni dafa maa woo mu bàyyi léppam ñëw topp ma maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax xam nga di nuyu buuba def ci kot di ko siyaar bu baax a baax. Eh. di siyaar waa Mbour bu baax a baax a baax a baax. di leen bëggee bu baax a baax. di siyaar Alain maa ngi koy siyaar boo wax borom Rente Dakar maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Papa Touré borom Italie di nuyu waa Gambie Thiam maa ngi koy siyaar président CNG bu Gambie suma doomu maam la ku mën a sonn ci man la di nuyu waa Gambie yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu ñëpp di nuyu suma njaboot. bu baax a baax di nuyu suma ay mag yu jigéen bu baax a baax a baax di wax na ñooy suma ndey nañ ma ñaanal bu baax ci kombaat yi ma jëm incha allah suñ borom defal ñu ci ndam ci barki maam Cheikh di nuyu waa Kawsara Fall ak waa Ndar Fall di nuyu waa Kawsara Fall ak waa Ndar Fall di nuyu Baye Fall yëpp kulohum di nuyu sama jigéen suma xarit suma sang soxna May Fall ak borom këram sii di gisee wasalaam yàlla suñu borom joxal ma Mamadi ayca rafetlu toogaay bu baax xam nga suma adversaire ma koy santaat bu baax waaw la fekk que mu am courage jël combat bi di sant bu baax a baax nuyu le grand Fabrice Alouche depuis la France di ko sant ba di gërëm xam nga di nuyu xam ne mooy coach Bakary di bu baax a baax a baax xam nga di nuyu waa Médina encore une fois Fass Gueule Tapée Colobane di nuyu ñëpp xam nga di nuyu suma village mooy waa Ndiafa Séré Ndiafa Escale Ndiafa Bër Ndiafa Socé ak 75 village ko wër yëpp di nuyu sama papa xam nga di nuyu suma yaay waa ndox mi waa Moundé ñoo joor jor waal xam nga baasul baasaar xam nga di nuyu waa Gambie yi bu baax a baax suñu baabu Real Aziz suñu baabu Cheikh su Mbooloo di nuyu waa Kolda waa Guinée Bissau yi di nuyu waa Ndar yi bu baax a baax a baax waa Yaraax yi Mareyeur yi xam nga di nuyu waa Diourbel tam bu baax a baax a baax a baax di leen sant baax di leen gëm sama gars yi may àndal nag ak sama mag mu suuf yàlla yàlla defal jàmm di remercier ñëpp nag wax dëgg yàlla dinaa ñëpp jàmm mais combat bi dafa sori nag torop <laughs> Sénégal bukki amateur yi le promoteur des jeunes espoirs revient le 27 novembre ci arène nationale bii yoon nag dafa nar a a tàng gën a neex ndax amateur yépp ko namoon moom Sam Mbaye Fall njiital Sam Production mu ne le 27 dama leen andil combat bu rëy combat bi dox ci diggante ñaari goxi làmb ndax ku wax Jacob Baldé wax Pikine wax Ama Baldé ku wax Ndigal wax waaye wax Balla Gaye 2 muy grand komba di combat bu amateur yépp di xaar la ca gën a neex nag mooy bile drapeau la ñu dippe Omaro Omaro bu Serigne Saliou Omaro bu Cheikh Béthio Thioune Omaro jàmbaari Serigne Saliou Ndigal Thioune nekk ambassadeur u KPI gannaaw bu yàggul la ko waa Raaya Awards daal di def communicateur di peuple sàmbay ne fet bi kon ci arène nationale le 27 combat spécial ba lay brisé bu écurie jàmm ji kër Mbay Fall moo nar a jàkkaarloo confiance bu écurie Tivaouane Peul mu ne combat spécial boobee nag mooy trophée ETDR di établissement Touba Darou Rahman sàmbay fa seen leen a delloo njukkal ci seen njàmbaar ak lu baax li nuy def ci làmb ca combat préliminaire ya diggante jéen bu déggoo ak yanda bu sura mbër bu njàmbur Casamance mbës bu Malika nekk écurie Bathie Seras mook Siteu Lawbe bu ressortissant Fatick jam zo 2 bu Bosco Sow ak bébé les bu école de lutte Balla Gaye kooba bu caaroy mbooloo ak bébé ama bu école de lutte Balla njool waalo bu écurie Grand Yoff mbooloo dana jàkkaarloog Tyson bu écurie Songane Gueye metti bu Kër Massar ak Antou Ndiaye bu Dalifor mbooloo bas 2 bu caaroy sur ak maaf gi bu Badajon ñu ne bile bés nag événement moo tax sàmbay daal di ciy dugal ñiy jàppale lamb muy sponsor officiel ya xam ne li jëm ci wàllu bâtiment ci wàllu génie civil ak mbooleem lu jëm ci wàllu BTP bàyyil ak ñoom ànd ceeg waa nuuru la jus bi baax te wóor ñi nga xam ne façon jus naturel boo bëgg am nañ ca buy seral xol rax ca doole ñu indi leen bu bees tàq bi sénégale yi doon laaj muy jus gingembre ba ñu ànd ceeg alburax automobile ñi nga xam ne li jëm ci wàllu vente ak location automobile bàyyil ak ñoom dañu la koy defal ci njëg yu xéewale te mucc ay ànd ceeg laay bu deef commerçant bu mag bi nekk ci Petersen en face Orca di jaay lépp lu jëm ci wàllu habillement prêt à porter yu amul fenn ànd ceeg waa muy bois boisson énergétique bi nga xam ne boo nekkee compétiteur nga xam ne boo nekkee sportif moo war a nekk sa xarit ndax moo lay encourager ci ay entraînement tey dalal sa yaram ànd ci nag ak waa Penipro muy entreprise bi yëngu ci wàllu gel lave-mains lave-vitre parfum de ay eau de javel ay savon liquide ak ay savon poudre maanaam lépp lu jëm ci wàllu setal ak xeeñal xet gu neex ñoom waa Penipro ñoo ci teg loxo ànd ci nag ak waa Go Parfum nga xam ne façon parfum boo bëgg ci àdduna jokkoo ak ñoom ñu jox la li nga bëgg kon mbokki amateur yi bés baa ngoog le 27 novembre ci arène nationale combat yi ñu dippe Omaro bu Serigne Saliou sàmbay ne entrée dama ko yombal ba dee bu dee supporter 2000 francs la amateur 3000 francs bu dee loo 5000 francs kon mbokki amateur yi bës a ngoog ci biir bës yi combat bi kenn warul xaar ku la ko nettali muy diggante Zago Balde ak ndigal bu école de lutte Balla kon ay ca leen ñu dem ci arène nationale le 27